ربي بما يسرون أزآن قد فجأ بجاي أبدل من لله قد لجأ حمدي لرب الكريم من لا شريك له وصدري اليوم نور لبيك اللهم لبيك لبيك لا الليل إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم الحمد لله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 نسألك في سفرنا في سفرنا هذا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ وسوء المنقلب bàyyi leen ak Oustaz euh, Abdoul Bakhy euh, mu indil leen nag étape bi ñu toll nii ginnaaw bu ñu tey nag am yéene nag tàggu dugg ci aj bi bisimilah. waaw ah, salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ah di leen tënkal rek fi nga xamante ne fi la ñu toll bi ñu dugg ci aj gi fan yi yi ñuy def yëpp ay naafila la woon. kullu ziar bi ñu defal. dem rawdu yonent bi alayhi salaatu wasalaam dem baqiya dem di ziyari di julli ji yooyu ay nafile la way li ñu taxa jóge Sénégal ñëw tay ji lañ ci jublu nan la ci jubloo fi la ñëw ci biiru aali ñu koy wooyee Zul khulaifa biiru ali muy Zul khulaifa moy miqa ñi jóge Médina comme que ñun medina lañu nekkon nekkoon booba ba tey Médine la ñuy génn fas yéene dem Màkka mo waral fi ñu toll la ñuy yéenee képp koo xamante ne yaa ngi aj fas yéene def tamatto fii ngay taxaw ni labbayka allahumma tamattuan labbayka allahumma umratan yow yàlla wuy si naa la ci umra képp koo xam ni da nga fas yéene def xiraan fii ngay taxaw ni labbayka allahumma hajjan wa umratan yàlla wuy si naa la ci aj ak umra képp ku fas yéene def tamit li ñuy wooye ifraat fii ngay taxaw ni labbayka allahumma hajjan جناب بوري في سنة عراكة الفاتحة قل أيها الكافرون فاتحة قل والله أحد كن لولو تراني تور تلو باري رك دوكو دي وقت لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك بعد مكة المكرم كن في نطول تايم ويبيض وآلي جري جري جري السلام عليكم عليكم السلام شو ما أجي نقول دفع مني من غير إسليك إذا بني طول مني مني يا الله كي ما خمسة يوم عن جسد كي جم سان بوتة مدينة المنور إن جتي زول فهو ليفن ينان كبير وآلي إنه في فسيني sunu ponk bi jëkk ci aj bi ñu dollee sant sunu borom la ndax moom fii moom faaw nga jaar fi yéene ban façon aj nga war ñetti façon yi ñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy tamattu ifraat ak xiraan fii lañ koy fas yéene yéene doog a jublu ci yoonu Màkka bi jërëjëf kon foofu mooy sunu première ponk ci aj ji muy armal boobu ñuy def nga xam ni tamattu la ñuy def dañuy wax labbayka allahumma umratan mutamattian biha ila al hajj ko mënta wax ci arab nga wax yàlla wuy si naa la ci umra bu boobaa nag lii ñu la waxoon lépp doo ci defati benn mooy boo dee góor doo muurati sa bopp doo dagg sa wey loxo ci sa gémmiñ doo dagg sa wey tànk doo laal parfum du ci sa yaram du ci sa arma doo sol lu ñëw doo sol dàll bu ñu ñëw doo sol kawas doo sol ay gants doo rey aw doo rey mat doo dagg garam lu sax ci aram bi doo suqi sa kawar bopp doo wokk sa yaram ba mu naaj may nañ la bu dee weer yi ngay mooy sa ordonnance nga bi ngay denc sa xaalis yi ñu yore لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك